Ciao a tutti, ciao ragazzi, ditemi bentornato e vi dico grazie. Quando è successo? Lolu kañ la lu amoon la ñu di la ko nettali wala ñëw ñu la wax nga ne ah waa loolu kañ la quando è successo quando è la notte scorsa la notte scorsa la notte scorsa biig si guddi come dire ieri notte guddi gi weesu sto arrivando maa ngi nii di ñëw sawaay foo nekk booba maa ngi lay xaar sto arrivando maa ngi noonu di ñëw sto arrivando sto andando waa sawaay foo nekk booba léegi demagoo sto andando maa ngi nii di dem sto andando sto andando sto parlando al telefono damay wax téléphone parlando al telefono xanaa déggoo maa ngi lay woo boobu léegi sto parlando al telefono damay wax téléphone lo sto facendo maa ngi koy def li ma la nga def ko boobu léegi defagoo lo sto facendo lo sto facendo lo facendo maa ngi nii di ko def maa ngi koy def ngeen def très attention ci euh, aussi sto bi noo nee isto noo nee asto sto da ngay mel ne kuy siiju sto sto camminando maa ngi dox yow mënoo waax si da nga yeex doxal waa yow sto camminando sto camminando maa ngi dox de pourtant maa ngi dox sto mangiando sto mangiando damay lekk sto manjando waa sa ni ngay waxee nag sto manjando damay lekk moo tax damay lekk sto dormendo sto dormendo sto dormendo damay nelaw sto dormendo maa ngi nelaw damay nelaw sto aspettando maa ngi xaar saa soo manee xaar baax na soo mënul xaar tam mën ngaa bàyyi ba suba nga ne ah non non non sto aspettando maa ngi xaar maa ngi xaar saa yi pare goo foofu ba léegi sto aspettando maa ngi xaar ñëwagul cosa stai facendo looy def wala parfois ça dépend ci fi nga koy waxee looy def nii parce que mën na nekk cosa stai facendo laaj rek ah saa waay loo nekk looy def nii ci loo nekk sinon cosa stai facendo waaye looy def nii cosa stai facendo che sta dicendo che sta dicendo lu muy wax déglu déggoo ko baax nga lu muy wax lu muy wax sinon che sta dicendo parce que lu muy wax nii che sta dicendo ça dépend ci ni nga koy waxee ak ni nga koy laaje lo stiamo cercando lo stiamo cercando ñi ngi koy seet ñun ñoo ngi koy seet waa affaire bi gisagu leen ko ba léegi loos stiamo cercando. 5-6. Lo stiamo cercando. State tranquilli. State tranquilli. Non dite tranquilli. Tranquilli. Tranquilli. Dallen. Andle check tranquilli. Tranquilli. Me ne sto occupando. koy occupé. Bàyyi ko sama loxo. occupando nag baat bi pour trouver ko ci olof xaw na ma jafe tuut soo leen ko xamee ngeen bind ko ci euh, comment yi mooy occuper dara non sa waay bàyyi ko sama loxo rek menes to occupando non non maa koy gérer comme noonu la foofu lay waxee quoi menes to occupando menes to occupando bàyyi ko sama loxo maa koy gérer sto il verbe stare mooy yi ngeen jàng foofu yëpp donc io sto bu fekkee yow la su fekkee keneen la tu stai ki nga jàkkaar lool lui wala lei sta noi stiamo voi state loro stando io sto lavorando damay liggéey tu stai dormendo tu yow da ngay nelaw lui sta parlando moom day wax et cetera comme ni ma leen ko jàngale noonu ba mu jeex mi piace il cibo piccante ñam wu safkaan yi neex na ma chéri man dama bëgg ñam bu safkaani mi piace il cibo piccante mi piace il cibo piccante ñam bu safkaani dama koo bëgg ñam bu safkaani neex na ma ah ñam bu safkaani mu neex na ma mi piace il cibo piccante circa un anno circa un anno lu war a mat at quando è successo loolu kañ la woon sax kañ la xew circa un anno lu toll ci at lu war a mat at war naa mat at bu la ci neex firee ko ko su la ci neex rek waxe ko circa naa no circa due ore fa war naa toll ci ñaari heure esatto sbrigati sbrigati gaawal gaawal sbrigati gaawal gaawal gaawal gaawal simple tout simplement gaawal comme ngay def dara moo xam dangay nekk ci liggéey sa capo tax naa sbrigati gaawal li ngay def dafa yeex sinon ngay dox euh, ngeen dem ci loo xam ne da ngeen war a gaaw mais dafa am ku yéex nga ko sbrigati gaawal wala boog sbrigati gaawal walla ñu ne fee fekk e scomodo e scomodo si soo leen xamee baat bi dëgg ci wolof ñu koy waxee euh, ngeen bind ko ci commentaire yi mooy c'est-à-dire commodowul yéen a ngi voyager ci oto mais yow place bi nga toog dafa xat wala <laughs> lu fa nekk euh, di la jàmm wala et cetera lu mel noonu nga ni questo posto è scomodo posto bi dafa comodowul ak man quoi neexul amul kii daal wala dafa xat xam nga baat bi ñu ko waxee effectivement ci la mais war ngeen mën a comprendre comodowul come lo sai come lo sai noo ko xamee ñëw nettali la dara wala nga ni naa naa ngay laaj noo ko xamee tout simplement noo ko xamee moom simple na noo ko xamee come lo sai come lo noo ko xamee nel giro di una settimana nel jiiro di una settimana nel giro di una settimana nel giro di una lu toll ci ayu bis come dire circa una settimana comme circa un anno bi ngeen jàngoon ba tey benn la nel giro di una settimana loo xam ni dafa nekk ci diggante ayubis la ko def li ma doon liggéey liggéey naa ko ci ayubis nel giro di una settimana ho fatto tutto ci diggante ayubis ci laa def lépp non posso farlo ora non posso farlo ora eh non posso farlo ora mënuma ko def léegi su neexee nga bàyyi ba nga ñëw waaye actuellement moom mënuma ko def dafa am leneen lu may def non posso farlo ora non farlo ora ndax man naa laa jàppale gis ku yor lu diis di dem wala mu am lu muy def te nga xam ni kii li muy def jafe naa ak moom mais yow mën nga ko dimbali nga ni ko posso aiutarti posso aiutarti ndax mën naa la jàppale ndax mën naa la dimbali posso aiutarti sono molto affidabile sono molto affidabile sono molto affidabile quindi tranquillo sono molto affidabile sono molto affidabile mooy ku maandu laa man nit ku maandu laa ku mën a dénk laa kuñ mën a wax secret laa koo xam ni maneef na ko wóolu nit ku mën a wóolu mooy nit ku affida bi